waaw brigade bi ñu ngi ko créé depuis mois de mai deux mille vingt deux te boo xoolee boobu ba léegi liñ fi sauvé si ay nit ëpp na téeméeri doomu aadama donc liggéey boobu dañ ko war a jël en compte dañ ko war a bàyyi xel te ñi fi ñu sauvé ñëpp ay doomu Malika la doomu Yëmbal doomu Kër Massar doomu Tivaouane Peul donc c'est la banlieue moo gën a concerné waaye liggéey la bu jafe bu difficile bu metti bu laaj. dimbal bu laaj également ay moyens yu am solo te mooy yooyu ñu ngi siy xaar képp koo xam ni doomu Kër Massar nga doomu Malika nga képp koo xam ne également yaa ngi nekk autorité ci dëkk bi vraiment ñu ngi ñu nga nga dimbali ba te liggéey boobu aussi mën ñu ko def sans population yi mu tax ren ñu ñu ñu lancé benn slogan boo xam ni pour ñëpp la mooy dund ak géej vivre avec la mer te dund ak géej day tax ñu xool ceet gi parce que plage yi dañoo salte te loolu jaaduwul ay nit mun ñu fu ñuy nekk pare taqal ko après bu ñu xëyee ñëwaat taqalaat ko kenn ko bale chaque day nekk plage bu insalubre kon loolu il faut ñu jëm ko il faut ñu yi il faut ay comportement yu yu durable comportement yu propre yu sain yoo xam ne ensemble su ko nekk dugalee loxoom rek li ñu bëgg si plage bi dañ ko am muy plage bu set ak plage bu wóor ndax géej géej nekkul musiba pour man géej c'est un don don la maanaam loo xam ne bëgg ñu bëgg ñu ko bëgg amuñu ko bala may wala yàlla may nga am géej da nga ko war a sàmm ñu koy sàmmee nag da siy bokk boo ñëwee géej fekk fa ay maintenance nekk fa nga déglu leen nga xool ñoom li ñuy def nu lay wax da ñoom ils sont pas là contre yow la pour yow kon di jiitu mooy nga nekk en paix ak ñoom nga am jàmm ak jàmm ak ñoom

ñu pare compétition jëm mois de juin dañ bàyyi xel xale yi si li ëpp si li gaañu boobu moment la ñu gën leen a bu baax yaakaar naa bis ñëpp jàppee rek mën naa mën naa jumtukaay moom soxla nañ ko trop trop ndax liggéey dafa metti dafa metti dafa demander ay moyens ndax nit exemple si bëgg a lab il faut nga fay ba si moom pour jéem ko sauver te des fois bu fekkee dafa bëri vague di nga def si yoon bi ay cinq minutes dix minutes loolu dafa bari dafa ëpp pour sauver nit bu dee am nga scooter de mer nag wala jet ski de mer loolu si fukki seconde du ko mas sax nga egg si moom kon temps bi ngay def pour sauver ko lu mu gën a néew rek nga gën a am chance pour mën ko sauver kon loolu nag mooy yooyu nag ñun amuñu ko nax dafa xaw a cher li ñu ko ñu ko am mooy état moo ko am ak yenn population yi yenn policiers yi également ñu nekk ci dëkk bi ñu leen lancer appel pour ñu jàppale brigade bi par rapport ak équipement yi ñu manqué. Oui, liggéey bi euh, liggéey bu am solo la la brigade euh, surtout des maîtres nageurs de de Malika moom lay def si si si jiwaan bi donc mën nañu wax ne daaw presque amuñu woon cas de noyade cette année aussi euh, ñoom ñu ngi jàppale surtout la collectivité la communauté sur surveillance place bi lutter contre les noyades gis nañu aussi sen seen taxawaay si sensibilisation si walum set setal vraiment euh, côté boobu mu leen di encourager wa recommandation am solo euh na fi laaj nañu surtout un un appui ñu jappal leen surtout si walum sen matériel yi euh, jumtuwaay yi euh, sur les gilets donc amna aussi aussi euh, une prise en charge parce que souvent la place c'est des volontaires donc pour que vraiment que ñu les leen pour nous jël en charge. comme nous commençons monsieur le maire waxee sànq rek bi muy séance bi satisfaction totale sur ci Malika parce que quand ku connaît dégg na li fi xawoon ça fait deux ans ci ginnaaw mais ci la créé yu Malika ji am initiative bi créer une brigade de surveillance. mais wax dëgg yàlla tubaarkàlla ça fait deux ans comme ni ko le préfet waxee sànq seen bilan ñëpp ci am ko mbégte population Malika surtout communes yi nga xam te ne ñoo wër Malika parce que dañuy wax Malika mais commune lu mel ni Yëmbal ba Tivaouane Peulh ñoom ñëpp la concerné